asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk mbokk téléspectateurs yi ngeen xamante ni yéen yéenay siibur seen fa tabaarakallaahu seenu youtube bi nga xamante ni moom la xale yi bëgg fa tabaarakallaahu nabi yëpp bëgg ko képp koo xamante ni yaa ngi safoo xadara Cheikh Sidil Hadji Malick ak usratul malikiya fa tabaarakallaahu li nga xamante ni moom ngay seetaan muy sa télé wante muy sa site internet moom mooy étoile tv tey nag ñu nekk ci fii nga xamante ni mooy tiwaawan di dëkk bu sell fa tabaarakallaahu ñu ñëw fi nag ngir ziar général bi nga xamante ni moom moo war a am suba wante tey di jouru gàmm gi nga xamante ni mooy umul xayre mi nga xamante ni Serigne Babacar Sy mi nga xamante ni moo waral ziar bi ki tax ki ko doon toggal nekk ci waajam tey moom la ñuy defal gàmm fa tabaarakallaahu wante dañuy dem seeti sunu benn xarit koo xamante ne borom xam-xam bu mag dëkk fii ci Tiwaawoon fa tabaarakallaahu bokk ci formation bi nga xamante ni nii Serigne Babacar Sy Abdou moom moo ko defar fa tabaarakallaahu bu waxee rek nga xam ni borom xam-xam wax na waaye bu waxee rek nga xam ni borom yar wax na waaye bu waxee rek nga xam ni borom tekki ak teey wax na kooku mooy Alxaaji Moussa Fall fa tabaarakallaahu moom la ñu dem seeti ko mu wax ñu kanay Serigne Babacar Sy wante mu wax ñu Serigne Babacar Sy ak ni nga xamante ni noonu la dunde woon ak charia wante Serigne Babacar Sy ak ni nga xamante ni noonu lu dundee woon ak li nga xamante ne mooy xaqiqa ak Serigne Babacar Sy ni nga xamante ni noonu la ko ndaw ñu soppee bëgg ko boo ko ci wax mu nga mu ne la Serigne Babacar Sy moom mooy sama maam ki ñuy dem seete ko mooy alxaaji Moussa mu wax ñu kanay Serigne Babacar Sy bu ñu paree fa tabaarakallaahu ñu daal di dellusiwaat ci fii ci jumaa ji fi lay lépp di xewee Étoile TV di leen wan ziar général bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokki téléspectateurs yi nga xamante ni ñooy safo seen site internet bi nga xamante ne fa tabaarakallahu mooy étoile tv nga xam ne fa tabaarakallahu lépp loo xamante ne mi ngi xew ci xadaratul malikiya waaye lépp luy xew fii ci fa tabaarakallahu mooy dëkk bu sell bi di tiwaawoon du leen ump tey nag fa tabaarakallahu ku ne xam na xew-xew bu mag bi nga xamante ni moo am tiwaawoon wante lëmbee jamono ji fa tabaarakallahu xale yi ki nu bëgg mooy Serigne Babacar Sy fa tabaarakallahu tey nag ñu ñëw ci sunu kër sëriñ wante tamit ñu ñëw seet si koo xamante ne sunu magu daara la di sunu sëriñu daara fa tabaarakallahu ñu fa yéene waxtaan ak moom ci li nga xamante ni mooy ziar bi waaye ñu waxtaan tamit fa tabaarakallahu ci sëriñ Babacar Sy wante tamit ñu waxtaan ci ni nga xamante ni ni la xale yi war a ziare bu ñu demee ci rawdu yi ndax fa tabaarakallahu ah, dafa am noo xamante ni noonu la ñuy ziara ci rawdu te yooyu yëpp dafa am solo bu ñu toogee ak borom xam-xam yu mel ni ñoom ñu laaj leen ko rek ñu indil ñu ci ay leeral fa tabaarakallahu kon Alhaaji Moussa dañ lay bàyyi nga nuyu ak ak ñi nga xamante ne ñooy fa tabaarakallahu téléspectateurs yu yu tv fa tabaarakallahu bismillah أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم ذي العدوان آمنت بالله واعتصمت بحول الله وتوكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم mbokk yi ginnaaw bi ñu sante yàlla buur julli ci sangu-sang yi maulana sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaanal suñu yaakaar maulana cheikh sayidi ahmed tijaani ñu ngi nuyu mbooleem jullit di nuyu àddina bi yëpp fu nit mën a nekk tey seetaan vidéo bi rek rawatina ci site bi nga xamante ni mooy étoile tv ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara te di leen bége bu baax a baax tabarakallahu mel ni xaaj ni nga ko waxee léegi mm. ñu dëgmal li nga xamante ni mooy ziyaar général te su ne ziar général rek xel yépp dem ci kenn ki nga xam ni amuñu kudul moom di maulana cheikh al xalifa saydi aboubacar radiallahu anhu hmm. moom mi nga xamante ni mooy premier xalifa bi wuutu maulana cheikh al xaaji malik radiallahu anhu hmm. te ku mel ni sëriñ babacar si waxtaane ci moom jafe na jafewul waxtaane ci moom neex na hmm. ndax koo xamante ni suñ la laajee kan mooy sa baay ñu ni maulana cheikh al xaaji malik ndax kan mooy sa jur bu jigéen ñu ni soxna roqiyatu njaay te jàng ngeen ci Alxuraan ni ko suñu borom subhaanahu wa taala waxee borom xam-xam yëpp di ko misaalee nitu yàlla yu tedd yi mooy wal baladu tayiba yaxruju nabatuhu bi izni rabbihi walladi xabusa la yaxruju illa nakida sëriñ Babacar su melee ni mu mel laa garwa ku am baay bu mel ni Cheikh Alxaaji Malick am ndey ju mel ni soxna Roqiyatu Njaay di ndar-ndar ak fa mu jaar ak Cheikh Alxaaji Malick ko Maodo ñëwee di soxna mhm. bari na doomi ndar borom yi alal yu taxawoo ngir bëgg mu mu nekk seen soxna mhm. mu lànkal ñépp ni mhm. mankat njoolum fuuta bii laa bëgg te mooy Mawlana Cheikh El Hadj Malick góor gi jël ko denc ko comme nañuy denceew mbooleem góor teral ko ànd ak moom ñu dox dox ba am doom bu mel ni Cheikh xalifa Khalifa abu Aboubacar waaye wax naa la ku sa baay yar jàngal la ku mel ni Cheikh xaaju Hadj ku mu jàngal nga xam ku mu jàngal laa xërwa ndax ñi mu jàngal te du njabootam sax jullaasuhu wa asxaabuhu agnawka an tawsifi wa hum fi kulli makaan mm-hmm. maam Alaaji Mansuur nee na soo bëggee xam Cheikh Alxaaji bul xool Maodo xoolal Sëriñ Babacar Si radiallahu anhu rek doy na ci mu jàngal la kan mooy baayam te moom baayam moo ko jàngal ko dalal jox ko jox ko mag ku mel ni Mamour mu jàngal ko ba mokkal Alxuraan ba mu paree ñëwaat ci baayam Cheikh Alhaaji Malick Cheikh Alhaaji Malick jàngal ko def la muy def ci moom moo tax bi ñu ko laajee yow Babacar Sy sa digganteeg sa baay suñ doon misaal yow ak Cheikh Alhaaji Malick ngeen mel daf ni man invisible laa ci sama jëmm baay Cheikh Alhaaji Malick wa qalbiya fi alaqati qad kafaani ana wallahi xaqan fii kafaani nee bu doon sama xol man Babacar Sy am na amour dama naan man sama amour lépp jël naa jox ko Cheikh Alhaaji Malick radiallahu anhu kon ku am baay bu mel noonu mu jàngal la tatagal la def ci yow li muy def ci yow mm. dañ naan laa xarwa moo tax sëriñ Babacar si du jaaxal kenn xale yi judd ci ginnaaw mbay mm. gisuñu mbay te xamuñu mbay te koo ci wax rek mu ni Babacar si mooy sama maam loolu nag Seydi Cheikh Ahmed Tidiane nettali na ko ne bi mu toogee ak moom di waxtaan ba dugg ci maqaama al qutbaniyat al mm. mu ñu ko ah kii di maam Cheikh Oumar kat wóor na ma ni toogoon na ci maqaama boobu hmm. ak sa maam Cheikh Alxaaji Malick toogoon na ci maqaam boobu Serigne Cheikh ne mu laaj ko ni ko waay bàyyi maqaam boobu ku ci toog noy mel mu ni ko naa la ci wax daal benn mooy su képp fu nit mën a nekk ci naaxiyatal aalam su déggi sa tur rek dalay sopp ba dalay fexe bëgg kon maqaam boobu dañuy dégg ni kon Serigne Babacar laa radiyallahu ko toogoon na ci cër boobu mm-hmm. moo tax fu nit mën a nekk ci àdduna soo déggee turam yaa ngi dox ngir jëm so pour xam kan mooy sexal xalifa mm-hmm. yaa ngi dox ngir jëm ci bëgg kan mooy Cheikh xalifa waaye Serigne baaba kër si ce que ni ko nitu jamono di wootee ci bëgg est-ce que noonu la ñuy bëggee nitu yàlla est-ce que da ngay gis sëñ Babacar Sy fan ko rek ni bëgg naa ko nitu yàlla soo ko bëggee da nga koy bëgg ngir xool jikko yu tedd yi nekk ci moom hmm. nga roy ko ci moom sëñ Babacar Si radiyallaahu anhu donn na turandoom Ababacar Saddiq ci dëggu ga mu dëggu woon ci xam-xam gu sell gi woon ci moom ci cëru yàlla gi nekk gi nga xamante ni nekkoon na ci moom ndax daan na wax ni man Babacar Si bi ma juddoo xam-xamee ba ni ma toll musuma fàttali ko fu ma moyee sama borom. waaw wax ju rëy jooju Xaaji Moussa. Mm-hmm. fa tabaarakallaahu nga xam ni nit. amul fitu taxaw fëgg dënnam ni musuma mooy yàlla daal di yenn waaye moom fit woow mu am fit wu rëy yow ba taxaw wax loolu ci digg Tiwaawan mm-hmm. loolu luñ bëgg a xam lu mu doon ak ndaw ñi nga xamante ni sopp nañu Seydi Aboubacar Sy ba koo ci wax Serigne Babacar Sy mu jaral ko jooy waa ñun ñun ñun ñun cofeel googu moo ñu jaaxal ak communication bi nga xamante ne moom la Cheikh Al Khalifa am ak jeunesse bi nga xamante ni man Mansour Sy kon ni nga koy waxee fa tabarakallahu moom moo waxoon ni man zaaruhu bi salimil qalbi naa la mun nan fas al bihi kulla man tara yaxshaahu waa communication boobu lan la ci jeunesse ku mel ni Cheikh al Khalifa radiallahu anhu loolu du ñu jaaxal ci moom su nee ni man Babacar Sy bi ma xamee xam ràññee ba toll ni ma toll fàttalikoo ma fu ma mooyee sama borom dañuy dellu ci waat ci waxu ki nga xamante ni mooy Mawlana alxaaji Mouhamadul Mansour ba muy jàngale baayam si alxaaji Malick mm-hmm. ruttat nufuusa li diinillahi tarbiyatan mm-hmm. iblisu mabtasamat minhul makaidu mm-hmm. nee na iblis bëri na kër gu mu dem reetaan na fa ba sànni ay tànkam waaye bi mu ñëwee kër Cheikh alxaaji Malick nag muñ sax jotu ko fee def ndax lan dafa fekk Maodo jiitu ko ci biir njabootam Maodo tàggat na njabootam ba ñoom ñëpp amuñu fenn fu ñuy jaar ba di mooy seen boroom moo tax mu ni ruttat nufuusa li diinillahi tarbiyatan tarbiya bi Mawlana Cheikh Al Hadji Malick def ci Serigne Babacar Sy moo tax mu teel a dindi ci moom li nga xamante ni mooy shahawaatu nafsiya yi nga xamante ni mooy gaar doomu aadama ba mooy boroomam di ko jóge ndax dafa am loo xamante ni moom la ñuy tuddee an nafsul amaara bi suu mooy bakkan bi nga xam ni moo lay tàggat di la jëmee ci pour mooy yàlla di yomb hmm. ngay gis mooy di ko la daloon yonti yàlla yuusufa ba mu naan wa maa ubarri'u nafsiya inna nafsa la amaaratun bi suu illa ma rahima rabbi kon nag nga xam ne pour nga mucc ci loolu da ngay dugg ci gaaraatug yërmande ki yàlla gi yàlla peegal la boppam ba doo ko mooy benn yoon kon mën nañu sëriñ Babacar Si radiyallahu anhu foofu la dugg mooy bokk ci ñi yàlla yërëm ba jëggal leen moo tax mu noot bakkanam ba musul mooy boroomam moo tax mu sañ comme ni nga ko waxee amul ku koy ku sañ a wax kàddu googu lu dul ni rek yendu doo yendu ci bëccëg boobu te moo taxit radiallahu anhu bi mu waxee kàddu gu nga gis wax na ko dundaat ay ati ati at ci ginnaawam te dara dalu ko ndax wax jooju kalimatu kalima la maanaam waxu nit ku dëggu moom moo wax wax jooju moo tax dara fekku ko ci te wax naa la léegi Cheikh Alhaaji Malick radiallahu anhu dafa mës a toog ak Serigne Babacar Sy mu ni ko waa Baye yow kat ñaan nga sa borom ca ba nga ni demee ci màkkatal mukarrama ni ko fii ñu nekk ci àdduna bu la fi kenn xam mhm. cir bu la suñu borom di jox rek na la ko dencal ba keroog yowmal xiyaam mhm. mu ni ko waaye fuñ nit mën a toll ci naaxiyatal aalam ñu ngi dégg Maodo Maodo Maodo ji mhm. moo tax way boobu nga dégg wéykat yi di ko wéy mooy njool faama jigéen ko waalo waalo moo ko bind Cheikh El Hadj Malick dafa toll ci jamono gis sëriñ sëpp ñoo ngi woote di fëgg seen dënn mun ko waa Malick Fawad sa nëbb bi ba kañ lu la tee nga génn samp sa ndëndu xare wan woo ñëpp wan ñëpp ni yow yaay Malick Fawad yaay doon nañ yonent bi ci kaw suuf ndax Cheikh Cheikh Omar moo la signalé la njëkk ngay judd moo tax mu ne ko njool faama mm-hmm. jaxaay lu la tee ji xaacoy si mm-hmm. lëmbee nga Sénégal yaay yor leeru diine ji kon ku mel noonu ku mu tàggat moo mm-hmm. defar sëriñ Babacar si ba sëriñ Babacar mel na mu mel Cheikh Khalifa itim li koy Cheikh al Xaaji di jur jur jur toogul ngir xaar barke baayam di ko doxee dafa xam ni kat yoon bii il yàlla wax naan wa amma man xaafa maqaama rabbihi wa naha nafsa anil hawa fa inna al jannata hiya al maawa mu tere bakkanam noot bakkanam ci lépp loo xamante ni shahwaatu nafsiye yi la ba jaamu boroomam ba àgg ci maqaama qutbaniyatal uzma moo tax bi Cheikh Al Hadji Malick faatoo gars yi ñëw naan ko waroo donn sa baay ndax xale nga mun leen yéen yéen a tardé yéen a ñàkk xam-xam ndax donn naa sama baay juróom-ñaari at te El malik Malick jógeegul ci béréb bii mu nekk kon nga xam ni ku mel ni Cheikh Cheikh Al Khalifa radiallahu anhu loolu laa xër wa cofeel bi nit ñi am ci moom yëpp mooy dafa jël léppam jox ko yàlla ku jël lépp jox ko yàlla nag da ngay gis ni yàlla ci boppam mooy jëlaat lépp tàggataatal la mbindee fi jox la ko moo tax yàlla ni woon kuy woote ni dag maa bëgg faaw nga bëgg kenn ki ma fi teg mooy sayyidina Muhammad qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah hmm. kon sëriñ Babacar Si loo woote woote ni gëm nga ko te bëggoo yàlla bëggoo diine islaam dañuy xoolaat sa cofeel ci sëriñ Babacar Si fan la tegu hmm. moom tamit dafa digmal yàlla bàyyi lépp loo xamante ni mbiru àdduna la jox boppam yàlla ba yàlla fayee ko xolu jaam yi moo tax sëriñ Babacar Si ku ko dégg da koy bëgg ku ko dégg xamoo ko da ngay fexe xam kii kana loolu lenn la mooy dafa bàyyi lépp àdduna dëkkmal boroomam yàlla fayee ko xolu jaamu yàlla yi loolu rek mooy cofeel gu rëy googu nga xamante ni moo tax nga dégg woykat bi di ko wax xale yu judd ci ginnaaw mbay gisuñu mbay xamuñu mbay te ko ci gis kat maanaam la Babacar Sy mooy sama maam loolu rek la bàyyi àdduna jël li nga xamante ni mooy bakkan ak la aju ca biir bakkan dëkk ma la boroomam subhaanahu wa taala dem ba yàlla ci boppam fay ko li nga xamante ni mooy xolu jaam yi ah, ñëw ci ziyaara général bi lan nga leen di jox comme comme comme comme baaxantal boo xamante ni wala comme leçon boo xamante ni bu ñu dikkee moom la ñu war a war a mën a ziyaara ñi nga xamante ni ñooy kilifa yi tëdd tiwaawat ndax tiwaawoon day day day day bërëb boo xamante ne fa tabaarakallaahu ku wax Seex Sidi xaaj Malick wax Sëriñ Babacar Si wax Alaaji Mansour wax Alaaji Abdou ñu nekk ñoo xamante ni kon ni nga ko waxee sànq jullaasu wa sahaabuhu mm-hmm. Maodo da doon nëbbu boppam waaye feeñut waaw da doon nëbbu boppam waaye loolu sotti sottiwut fa tabaarakallaahu kon nag bëgg na noo xam xale yi nga xamante ni ñi ngi ñëw di ziyaara si naka la ñu war a war a mën a def ba seen ziyaara yàlla daal di koy nangu ndax am na yoon ndax li kulli shay'in lahu sabil waaw kon lépp lépp loo gis am na yoon xale yi ban yoon la ñu mën a jël ba daal di def li nga xamante ne moom moo seen ziyaara muy ziyaara boo xamante ne fa tabaarakallaahu mutma inna lay doon xaaj tabaarakallaahu wax nga lu solo tey dem na ba mujj gi nit ñi yaakaar nañ ñi toog ci biir rëwdu yi di fotowu toog ci biir rëwdu yi di sinap toog ci biir rëwdu yi ñëw di raay weñu rëwdu bi di ko raay ci seen kanam yaakaar nañ ñi loolu mooy ziyaara te déedéet ziyaara du loolu mhm. Cheikh al Khalifa radiallahu anhu jàngale woon na moom ci boppam nan la ñu war a ziyaara baayam Cheikh al Haaji Malik mhm. te addabu fi darixi cheikhi zuwaaro inna taadduba li taadimi muxtaaro mhm. nee na su ngeen jógee seen dëkk te jaamu yàlla tax leen jóg ngeen ñëw lu mel ni ziar général di ziare Cheikh Al Hadj ak njabootam mm. sëñ Babacar nee na premier point bi ma lay jàngal mooy te addabu fi darixi cheikh zuwaaru yéen ñi nga xamante ni yéenay way ziara yi bàyyi seen dëkk ñëw ci xadra Cheikh Al Hadj Malick fas yéene ko ziara su ngeen bëggee li ngeen di ñaan yàlla mu nangu nee na ànd leen ak tegin bu dee jigéen mayal distance rawdu bi ngir moytu ki nga xamante ni mooy Cheikh Al Hadji Malick radiyallahu anhu ndax ñoom faatu nañu ba nekk ci biir suuf waaye tey la seeni leer gën a wër adduna rawxaan yi nekkoon ak ñoom yàlla dogal ñu tàggat seen borom ba rawaan yooyu ñëw nekk seeni i taalibe ñooñu tey la ñu gën a bëre ci seen béréb ya mhm. moo tax yow mi setul moytul bul dugg ndax sharia tere na la nga dugg ci jàkka ja foo mën a toog def sa ziyaara la ngay ñaan di ko jàng Cheikh Al Hadji dina ko yëg Serigne Babacar dina ko yëg yow mi ñëw di ziar sëñ Babacar nee na premier point soo bëggee li ngay ziara suñu borom nangu ko mu nekk ziara maqbula mm. nee na ta ëddëbu fi darixi cheikhi zuwaaru yéen ñi nga xamante ni yéenay way ziara ñëw ci xadra sëriñ Babacar si mm-hmm. ànd leen ak teggin te su ngeen ñëwee ca bërëb ba Babacar si sëñ Babacar si radiallahu anhu nee na mm-hmm. nee na kenn terewul waxkat waaye soo demee bay wax mm-hmm. nanga nga suufeel sa kaddu ngir bañ a déranger nitu yàlla ba ngay ba nga fekk ci réew doom bu tedd boobu ndax wala taxsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwaatan bal ahyawu inda rabbihim yurzaqun kon nga xam ne ñoom nitu yàlla yooyu faatuwuñu seen ruux moo toxalu ci xadra shahada bi jëm ci xadratul gayb kon nga yëg ñi faatuwuñu suñ Babacar ni soo duggee na nga ànd ak tegin te maa ngi lay wax lu am solo mooy bu ñu fàtte ni bërëb yi ñuy dugg di ziyaara kilifa yi jumaa la ak jàkka te taxiyatul masjid dafa war ci bépp koo xamante ni jullit nga mm. soo duggee ci jumaa ji wala ci jàkka ji mm. balaa ngay def dara jullil ñaari rakka nga def ko li nga xamante ni mooy nuyu gi ngay nuyoo jàkka ja wala jumaa ja mooy taxiyatul masjid mm. soo paree ci foofu nag nga daal di jàng li nga xamante ni mooy ñaan googu nga xamante ni moom la ñuy def ci taaya attahiyatu lillahi azakiyatu lillahi attayibatu salawatu lillah salaamu alayka ayuha nabi wa rahmatullahi wa barakatu assalaamu alayna wa ala ibadillahi salihin moom ngay def sept fois soo ko jàngee juróom-ñaari yoon ba ci huitième ba nga teg ci li nga xamante ni mooy tashahud bi mu tëj li xamante ni mooy taaya ba soo paree foofu nga def benn fatihatul kit kat euh, ñeenti fatihatul kitab soo defee ñeenti fatiha nga teg ci fukki lixlaas ak benn mooy onze soo paree ci onze du astaghfirullah quinze euh, onze salaatal fatihi nga ciy teg soo paree nga teg ci quinze li nga xamante ni mooy suratul ixlaas quatre fatihatul kitab onze salaatul fatihi ak quinze suratul ixlaas soo paree nga hadiyaal ko wëliyu bi nga xam ni moom nga ñëw di toog ci bërëbam ñaanal ko ci yàlla soo paree nga jàngal la nga xam ñaan say soxla waaye kenn du ñëw naan Babacar Sy Serigne Babacar si may ma fa tabaarakallaahu xaaj Moussa loolu muy loo xamante ni nii actualité la mm-hmm. muy loo xamante ni lu am solo la ndax di dem kon yaakaar na ni euh, euh, euh, mbokki internet yi yéen ñi doon laaj naka la ñuy ziyaara fa tabaarakallaahu naka la ñuy ziyaara wëliyu yàlla naka la ziyaara waayu yàlla fa tabaarakallahu yaakaar na ni kii di xaaji Moussa indil na leen ci ay leeral fa tabaarakallahu kon question boobu noonu nekkatul question boo xamante ni bu ni laablaame la leer na naññi kon na ko ñëpp bàyyi xel ziyaara du loo xamante ne ay caaxaan la bu ngeen duggee ci biir rawdu yi ngeen ziyaara ni ngeen xamante ni noonu la ko Seex Sidi Xaaji Maalik jàngale Sëriñ Babacar Si jàngale ko noonu waaye xaaj Moussa mu am beneen affaire boo xamante ne tamit jaaxal na nit ñi lool lool lool mm-hmm. mooy Sëriñ Babacar Si lan moo ko mayoon mu jubóog yàlla bañ ko doon wooye sax naan kun fayakun ndax nettali nañu ci mag ñi ni mhm. tiwaawoon amoon na benn jamono mu am bekkoor bu méttee méttee métti mhm. mag ñi ñëw ni dañuy baaw naan mhm. baaw naan gi biñ koy def baaw naan baaw naan nan trois semaines ndox tawut sëriñ Babacar Si ni du taw ndax dañuy ndax dañuy baaw naan fii tiwaawoon te man Babacar Si yëguma ko du taw première semaine bi tawut deuxième semaine bi tawut troisième semaine bi tawut waaw waaw waaw waaw déggoo boobu mu amoon ak borom bi subhanahu wa taala lan la waaw mooy li ma la wax sànq rek ci biir wax yàlla moo wax te waxu yàlla mooy faytee kaw lépp wa amma man xaafa maqaama rabbihi wa naha nafsa anil hawa fa inna al jannata hiya al maawa suñu borom nee na ku nekk ci biir adduna noot sa bakkan ba sa bakkan boobu yóbbuwula ci lu neexul yàlla mm. yow yëgal ni kat dee moo la ciy dugg biir aljanna mm. waa nitu aljanna bi nga xam ni déggoo na ak boroomam ci kaw suuf te faatoogul mm. kooku su nekkee ci kaw suuf foo jaar day déggoo boroomam yàlla soo ko jëlee teg ko cib cëram Cheikh al Khalifa radiyallahu anhu ku jàmbaare la dégg ngeen xalwaam bu rëy boobu nga xam ni moom la def ca tëngéej bi ko mhm. baayam Cheikh Alhaaji Malick mu dem tëngéej nekk fa mhm. def na fa xalwaam bu rëy boobu mille cent quinze jours la Serigne Babacar Sy radiallahu anhu tëju tëju goo xam nit tegu ko bët ngir dëgmal boroomam mais nag ku bàyyi àdduna ak na mu mel ak xeeti neex-neexam dëkk mal sa borom ba yàlla ci boppam moo yor cër yoo xamante ni yàlla moo koy ràngal ka ko soob wa anna al fadla bi yadillahi yutihi man yacha dalika fadlullah loolu ngëneelu yàlla boobu nga xam ne yàlla mooy jël ku ko soob mu jox ko ko sëñ Babacar Si dafa dëkk mal boroomam ci tarbiya bi ko baayam Cheikh Al Hadji Maalik def ci ruttat nufuusa li diinillahi tarbiyatan iblisu mabtasamat minhu lmakaidu moo tax xoolal maam Habib bi Cheikh El Hadji Malick gaañoo moom mi nga xamante ni mooy caatu Maodo la ko wax yaa saydi saadati jituka taaliban naylal wusuli li xadrati rahman sama baay Alaaji Maalik jóge na fi ci li njëkk mu fiy jóge kat yow la jël lengay jox la ko ndax yaa fi teewal yàlla inna jaalnaaka xalifatan fi l ard boobu fekkee ne Cheikh al xalifa nekk xalifa yàlla ci kaw suuf nekk xalifa sayduna Muhammad ci kaw suuf nekk xalifa Cheikh Sayidi Ahmed Tijaani ci kaw suuf moo tax maam Habib ñëw ko man kat dama ñëw sàkku ci yow ngir nga yóbbu ma ca xadra yàlla ba ndax xam toogee na maqaam goo xam ni ku mu bëgg defar mu defar la maqaama kun fa yëkun du dara kun fa yëkun yàlla la waaye yàlla am na jaamam yoo xam ni jaamu nañ ko ba ti ba am kóolute seen diggante ak seen borom muy doxee ci maqaama wa man daa bi zi alal yaqin yu jab waaye lu tax nag mu toog gaa yi ñaan bekoor bi taw war a am amul parce que boobu sakkuwuñ ci moom ndigal te maqaamu qutbaani yal usmaan ga ma toogee woon mooy la mu waxoon ci photom bu rëy boobu rek ne amul allahuma bu nit di jàng ci kaw suuf lu dul ni dana jaar fii man Babacar Sy ma vérifié lu war a ma bàyyi ko mu jàll lu warul dem ma téye ko loolu nag du dara mm. ndax yàlla fu mu toll fu ne mm. am nag mindeef boo xamante ni moo koy teewal ci kaw suuf mooy maqaamu qutbaani yal usmaan maqaam bi nga xamante ni su aktaab yëpp daje woon ak waas yëpp daje am na kenn koo xamante ni mooy nekk ci seen kanam nekk seen président kooku nag du réer ak yàlla du réer ak Mawlana Sayyiduna Muhammad te mën nañu am yaakaar bu wér ni Serigne Babacar Sy maqaam boobu la toogee woon moo tax ba gaa yi teggee yoonam dem dugg fa ñu xam ñaan lañu ñaan yëpp nanguwul waaye xoolom moom ba mu jógee jóg ngir dëgmal fa si yéene ñaani dafa laaj ñi nal jox leen ma sama dàllu boot yi ñu jox ko dallu bot yow mu ni jox leen ma sama parasol te boobu ñaanagul de waaye xam nañu la muy ñaan boroomam su ko ñaanee dina nangu ah, kon bi muy muy laaj parasol bi bi mhm. muy laaj bi muy laaj bi di sol dallu bote kon boobu ñaanagut ñaanagut boobu dafa doon préparé ngir dem ci xadra ci ci ci ci fi nga xamante ni fa ñu fa la ñu denc baayam Cheikh Al Hadj Malick kon moom kon moom mu mel ni amoon na certitude que ni li muy dem di ko ñaani boroomam yàlla daf ko koy jox. waaw parce que dafa wóolu boroomam yàlla soo ko wóoloo mooy li ma la wax rek laaji Cheikh Al Hadj Malick ba mu yëkkatee dog ya joxe dafa ñu dog bi lu muy rëy rëy rëy rëy rëy faaw nga am yaqin ci sa diggante ak sa borom. aynul yaqin xaqul yaqin googu faaw nga dem ba génn ci martaba yooyu dem mu mujj gi foo toll yaa ngi xam ne yàlla mi ngi jàkkaarloo ak yow. loo ñaan sa boroom yàlla da koy nangu moo tax la njëkk muy génn moom Cheikh Al Khalifa mu ni jox leen ma sama dàllu bot yi ñu jox ko mu sol mu abb para parasol bi te boobu ñaanagul woo maam Habib woo Cheikh Al Hadj Abdoulaye Si Dabaax ñi ñëw leen ñu ànd ndax nag bu jigéen sax soo ko bëggee ratt ab soowam lu nag ba soxor soxor jëlal doomu nag ba teg ko ca wetam mm-hmm. su xoolee doom ba rek moom dootul talati liñ koy ratt waaye doom ba lay bàyyi xel mu jël maam Habib ak Cheikh Al Hadj Abdou teg leen ci wotu rawdu bi ñaan baayam la njëkk muy génn dafa taw ba gaay yi ñoo ko fekk ci béréb bu naan ko kër Si taw bi doy na allahu akbar loolu du dara déggoog boroomam rek la te ku toog ci ku wuutu yàlla ci kaw suuf mën nañ moo tax ñu naan borom kun faye kun la mooy lu mu ñaan boroomam fata ay nin diggante xef ak xippe yàlla da koy nangu. Ah, kon kon kon kon xaaji bu buñ déggantee bu baax kon kun fa yokkoonu yàlla gi yàqul ci dara ci kun fa yokkoonu Serigne Babacar si bi. déedéet ndax maqaam la goo xam ne Serigne Babacar nekkul moom mooy borom kun faye kun de du borom kun faye kun waaye diggu nag boroomam loo xamante ni su nee allahumma kun yàlla ne ko faye mooy muy diggu yàlla parce que yàlla moo ne ñaan leen kii ñaan yàlla te am yaqiin su ñaanee boromam yàlla may ko nag kooku saa yu ñaanee yàlla da koy may yàlla borom sikki sàkk la mënul defal ndax yow mii soo jóge woon sa kër di seeti Macky Sall da ngay am ngëm-ngëm wér ni Macky su ma ko ñaanee un million dina ma ko may yaqin boobu bis boo ko amee sa borom loo ñaan yàlla yàlla defal la ko Babacar Sy nag xam na ni loolu muy ñaan boromam yàlla du ko delloo rawatina ci xadra maamam xadra baayam Cheikh Alhaaji Malick radiallahu anhu moo tax mu laaj parasol bi laaj dàll te ñaanagul moo la gën a xam ni li muy ñaan boromam yàlla da koy nangu qat'iyan ndax musul ñaan boromam lu boromam delloo ginnaaw waaw loolu waa waa léegi li jaaxal senegal jaaxal adduna bi Hadj Moussa mm-hmm. turu nga xam ni moom Serigne Babacar Sy tuddul xalifa wante Aboubacar Siddiq moom la ko Seex Sidi Xaaji Malik tuddee uh-huh. waaye dem na ba génn àdduna baatu xalifa bi des fi te jamonoom amoon na ay yeneen xalifa yu fi nekkoon waaye moom nga daan dégg ñu naan xalifa loolu jaaxal na ñëpp internet di ko laaj euh, euh, euh, téléspectateur yëpp di ko laaj bëggoon nañoo xam daal xalifa bi lan moo ko waral. xaaj ma wax la benn kàddu tey la jamono neex ba ku baayam faatu ñu xool ku gën a mag ca kër gi ni ko yaay sa xalifa baay mais jamono yi Serigne Babacar ku ku sa bàyyi faatu nga nekk taaw suñ la woowee xalifa nga d'accord ko 24 heures soo ko defee faatu. Allahu akbar tey la jamono neex de bi Serigne Babacar Sy di dund lettre soo ko jëloon bind ci Cheikh al nga sànni ko ci air bi ba lettre bi wadd ci kaw suuf kenn ku romb liir xam ñu jëf ci Cheikh al Khalifa da ko fay bàyyi xam nga ni moomoo ko Babacar Sy rek moo ko moom mooy li la wax rek inna ja'alnaka xalifatan fil ard xulafaa u rasul yi fa jógee Cheikh Ahmed Tidiane am na ay xalifa waaye biir Sénégal maam Cheikh Omar al Fouti ba mu jëlee ndénkaane ga da ko joxe daf ni lii bu doon maa ko moom xam ngeen ni du ko du tëb samay njaboot dem di ko joxe Alaaji Malick mi nga xam ne juddoogul kon wiraasa boobu moo ñëw Cheikh Cheikh al Khalifa la njëkk ñu koy woowee al Khalifa fii ci kër imam Moussa Niang ba mu fi dalee Cheikh al Haaji Malick woolu na ko mu woolu ko ñoom ñaar ñu tëju diir keroog la ko waxee ni ko mag ñi kat tànn ñu xool nañu sama ginnaaw xool nañu charqan wa garban yaminan wa shimala nee nañu yow rek Babacar Sy yaay ki leen fi doy ngir ëllëg su ma fi jógee nga wuutu nga wuutu ma man man Cheikh Al Hadj Malick kon nga xam ni loolu tur boobu mag ñi ñoo ko tànn ca xadra gayb moo tax moom sëñ Babacar Sy dalaanu mu daan wax ca waxam juré ya naan su ma doonoon gàncax sax du ma tee doon xalifa Cheikh Tidiane ci kaw suuf kon loolu jiitu na akub juddoom moom Babacar Sy tamit waxaan na jeneen wax ju rëy nee na ibli eh, nee na nee na Firawna la muy bon bon bon su ma ci tini woon yàlla mu jéggal ko yàlla jéggal ko waaw waaw man man daal man daal fit wi mu amoon jaaxal na non du fit dafa diggoo ak boroomam subhaanahu wa taala mooy li ma la wax lépp gis nga lépp ci ngëm-ngëmu yàlla lay ne wattaqullaha fattaqu wallahi maa jaawarat qalbam riin illa wasal borom téere ba imaam Aliyu nee na ragalal yàlla ndax ragal yàlla amul xol bu muy xolu jaam ba muy nekk lu dul ni kooku àgg na ca boromam ci gën jaa rafeti àgg suñ Babacar dafa bàyyi àdduna lépp jox ko waa àdduna dëkkmal boroomam yàlla xaasal ko ci nguuram jox joxul kenn loolu rek la te moo tax xalifa biñ ko woowee ginnaaw li nga xamante ni mooy mooy faatug baayam Cheikh El Hadj Malick te ma wax la histoire la njëkk Cheikh al Khalifa di judd déclaré lañu Cheikh al Xaaji Maalik wan ko ni ko yaay sa sëñ Babacar Si mi juddoogul Babacar Si mooy doon sa xalifa Allahu akbar góor gi Saar bu buudi maam soxna maam Roqiyatu Njaay bi ko Cheikh al Xaaji Maalik jëlee can ngam koy jox jox ko ko mu nekk teraanga gu rëy ci moom dafa jalaan alal ba yëpp delloowaat ko ki nga xamante ni mooy Cheikh al Xaaji Maalik Cheikh al bég lool woo mag ñi ñaanal ko yàlla ñaanal soxna Roqiyatu Njaay yàlla ngir yàlla may ko doom yu njaboot gu barkeel bi ñu ko ñaanalee góor gi xaaji Malick Sarr bu buuji nee na dafa tëdd guddi gis benn leer bu ballee asamaani juróom-ñaar dal ci biiru soxna Roqeetu Njaay mu nekk benn wurus wu ngande ñuy xëcc di xëcc ba sonn bàyyi xamuñu wurus boobu kat fan lay jeexee nee na waaye bi ñu koy bi ñu koy xëcc ci biir gént gi mi ngi laaj ci mi ngi laaj ci biir gént gi naan lii lan la ñun ko kiikat mu ngi dikk te su dikkee baba kër lay tudd te mooy xalifa Cheikh Seydi Ahmad Tidiane biy wutu Cheikh Al Hadj Malick Cheikh góor gi Abdou euh, góor gi Xaaji Malick Sarr bu buudi ne mu jaaxle maam Roqeetu Njaay wan na lor mu sippi ci jàmm ak salaam mu tombeel ak fa Cheikh Al Hadji nekkoon ci fi nga xamante ni mooy nomba sanjiri doon bind tey Taysiir siir ba àgg Sëriñ Babacar Si juddu mu dellu si waat Ndar di ko tudd bi ñu koy tudd ba bis ba sëñ Cheikh Al ni nañu ko tuddee Ababacar Saddiq góor gi xaaji Malick Sarr bu buudi nee mu dem lewatal xar ba dellu ci waat ci Cheikh El Hadji Malick mm. ni ko man kat dama géntoon benn gént ñu ni ma kat di ko am doom juy tudd Babacar te su tuddee Babacar mooy doon sa première xalifa moo lay wuutu ci sa ginnaaw te boobu maam Sidi Ahmed mii magam mi ngi fi jaaxle commencé naa moom taalibel mu ñëw Cheikh El Hadji Malick ni ko ah ma mbir mi loolu kat dama ko gént yow yaa ma ko mën a leeral ndax Sidi Ahmed mooy sa taw Babacar see ci topp mu ni ko man Malick Fawad kat sama tay laa xam sama wuute nag mbiru ki yàlla la kamay donn sama xalifa nekkul ci sama loxo waaye ci loxo yàlla la nekk soo demee ci benn téere boo xamante ni sëñ Abdu moo ko bind mm-hmm. muy ñu koy tuddee Alfayad nee na ci biir bis maam Sidi Ahmed dafa nekk ci tool moom ak Sëriñ Babacar Si ñuy bay mm-hmm. ànd ak Cheikh Al Hadji ci biir tool bi di bay mm-hmm. ñuy bay ba ci yàgg maam Sidi Ahmed ku yàlla mayoon ku yàlla dindiloon dindiloon xijaab yi la daf daan gis yonent bi ni mu ko neexee mm-hmm. ñuy bay ba ci yàgg mu gis Seydina Muhammad romb sallallahu alayhi wa sallam romb ko moom maam Sidi Ahmed dem waxtaan ak Cheikh Alhaaji Malick pare dem ci Serigne Babacar mu ñëwaat gis Cheikh Ahmed Tidiane ro waxtaan ak Cheikh Alhaaji romb ko dem ci Serigne Babacar si mm-hmm. maam Sidi Ahmed rek xaal ba mu ànduloon mu sànni gopp ga dellu ñëw dellu ci ci daara ji toog bi mu ñëwee ak xaalam bi mu posé question Cheikh Al Hadji Malick ni ko waa Baye lu tax ñu nekk ci tool bi di bay Cheikh Tidiane ak unité bi ñëw waxtaan yow ba pare romb ma dem waxtaan ak Babacar Sy keroog la ko Cheikh Al Hadji Malick ni ko mankat looy doon doon sama doom yaa may njëkk a dem wuy ji suñu borom so sama ginnaaw su ma fiy jógee Babacar Sy la fiy la fiy fekk moo tax mag ñi doon waxtaan ak moom ci xilaafa gi nga xamante ni su ma fi jógee ëllëg moom moo may wuutu nee nañu keroog ci maandu teg Cheikh Al Hadji Malick keroog la bind li ñuy tuddee sirral xilaafati mooy li nga déggoon alaaji abdu wayoon ko sëriñ mansour bushraakumu mansour qad wulitumu sirral xilaafati mawrida zamaani dafa am loo xamante ni moom la ñuy tuddee sirrul xilaafa ku toogul ci xalifa cheikh sayid ahmad tidiane xalifa yonent yàlla mouhammad sañoo laal sirru boobu cheikh alhaaji malik ak cër bi ko yàlla jox mu bind sirru bi jox ko suñ babacar ni ko jox ko sid ahmed mi nga xamante ni mooy sa maam sid ahmed ne mu xool sirru bi liir deretam yëngu mun ko Babacar Si sama baay dafa maandu rek moo tax mu yëkkati sirru bi jox ma ko waaye xam na ni man duma ko wutu yow yaay xalifa xalifaam jëlal sirru bi nga liggéey ko ngir balaa sama baay di fi jógee nga toog ci xilaafatoom bi moo tax sëñ Babacar ni wur dond naa sama baay Cheikh El Hadji Malick juróom ñaari at te la moo koy wane lu tax turu xalifa bi am hmm. mooy bi Cheikh El Hadji Malick faatoo mag ñi fi newoon hmm. dañoo ñëw bëgg jiital ma Mor Xujja si ni ko kaay yaay daara ji wutul Cheikh El Hadji Malick ndax yéen yéen ñaar yéen a bokk baay mun leen déet man su ma su ma demee bay toog ci xali ci xilaafa damay toog sama xilaafa bay waaye lii xilaafa Alaaji Maalik la njabootam ñoo ciy toog keroog la Cheikh Alhaaji Malick génnee piliyaanu Cheikh keroog la sëñ Babacar génnee piliyaanu Cheikh Alhaaji Malick ak mbaxane tengaane bi Maodo daan sol mu daan ni yéen mag ñi fi toog ñëpp ku ci woolu sa bopp ñëwal toog ci kaw piliyaan bi jëkkati mbaxane tengaane bi sol ko soo ko solee ay ay minute te tàkkoo man Babacar Sy ma bàyyi lee ak xalifa Cheikh Al Hadji Malick bàyyi leen ak xilaafatu bi te yëbb samay rakk wuti feneen fu ma dëkk. ken toogul kenn toogul. mu toog diir ni El Hadji Mansour ni ko ñëwal toog. mu toog ca kaw piliyaan bi mu yëkkati mbaxane tengaane bi teg ko ca digg boppam diir mu gis ni tàkkool dara xewul mu ngi koy yow mën nga donn sa bàyyi Cheikh Alhaaji Malick Alhaaji Mansour jóg mu woo Cheikh Alhaaji Abdoul Aziz Sy Dabakh mu toog ca kaw piliyaan bi mu yëkkati mbaxane tengaane bi teg ko ci boppam diir dara jotu ko mun ko wàccal mu teg ci Alhaaji Mouhamadul Habib ba ñu toogee ñoom ñëpp mu gis ni dara dalu leen mu xam ni wan mag ñi ni leen ñii mën nañu donn seen bàyyi Cheikh Alhaaji Malick man la fi seen bàyyi bàyyi nag man la dénk njaboot gi moo tax suñ baaba Cheikh Alhaaji Malick ni ko won kon njabootu kaw ak njabootu suuf ak njaboot gi ñu am yow Babacar Sy yaa ñu si doy. kon fa tabaarakallahu xaaj Moussa wolof nee na li duuf ci nag bi yëpp du xaj ci cin li fa tabaarakallahu te jëmmu jee ni toll. Serigne Babacar Sy buñ ko doon waxtaanee fii ba suba duñ fi jugee. fa tabaarakallahu wante ñu dogot dogoteekoo la ca xaj ca cin la ñu dugal ko ci. waaye góor gi moo ni toll dimension am. Mm-hmm. waaye yaakaar nan ni mbokki internet fa tabaarakallahu li xaaji Moussa indi leer na. wax nañu kanay seexal xalifa wante wax nañu tamit li ëpp importance muy ragal yàlla ga te ku koy roy te ku ko soppit war nga koo roy ci ragal yàlla ga moom seexul xalifa ndax moom nit la woon koo xamante ni léppam charia la ndax fa tabaarakallahu nit ñi ci boppam bu ñuy bëgg nit dañ koy bëgg ndax folklore Sénégal loolo fi am mm-hmm. waaye cheikhul xalifa ku koy bëgg war nga ko bëgg ca ragal yàlla ga mm-hmm. ndax moom huwa ibnun mm-hmm. li cheikh alhaaji malik huwa xalifatun li cheikhuna tijaani huwa xalifatun li cheikh sidil haaji malik huwa xalifatun li rasulillahi kon fa tabarakallahu haaj moussa kàddu bu mujj bi lan lay doon nga fa tabarakallahu mbokki internet yi xam naa macha allah ci sa yar macha allah waaye ci sa dal nga nangoo toog waxtaan ak ñun loolu ñu ngi la ci sant di la ci gërëm kon kàddu bu mujj bi lan lay doon. waaw sant yàlla rek di dellu di ko bàkkaat moom buur bi nga xamante ni nit judd na mat sëkk ci nit yàlla may ko làmmiñ te mënul wax suñu yàlla mayee làmmiñ bu fecceeku ba ñu mën a wax kon ñu ngi koy sant moom yàlla subhaanahu wa taala waaye li nga wax rek ñu bàyyi leen xel nit ñi xam ni Cheikh xalifa soo koy bëgg doo ko bëgg ngir folklore bëgg ko xam ni nitu yàlla la mm-hmm. bëgg ko xam ni dafa bàyyi woon àdduna dëkkmal boroomam mm-hmm. bëgg ko xam ni ragal yàlla gu mat sëkk moo nekk ci moom ba yàlla xaasal ko ci nguuram ba may ko li mu ko may tey mm-hmm. comme li nga wax léegi nekkul woon como moom sëñ Babacar Si sëñ Habib wax na ko wa xalifatun lil ahmadayni wa malikin fi l ilmi wal asraari wal irfaani nee na ko yow si xalifa Seydi Aboubacar ngay suñu taawu baay di suñu baay nax taaw mooy baay mu ni ko yow kat wa xalifatun lil ahmadayni yaay xalifa ki nga xamante ni mooy ñaari ahmad yi di sayduna muhammad ak cheikh seydi ahmad tidiani wa malikin te yaay sa xalifa baay cheikh seydi alhaaji malik yaa leen dond nag fil ilmi ci xam-xam gu mat sëkk wal asrari ak mboolem mbóot yu góor yàlla yi doon yor wala irfaan yi yaa leen dond itam ci li nga xamante ni mooy xam-xamu maarifa kon sëriñ Babacar Sy mi ngi noonu nekk na nitu yàlla boo xam ni mën soo doon wax ci moom tey ba déwén ci ziar général la nga xam ci moom du jeex noonu la ko yàlla defal li ñuy tàggatoo wi daal mooy mbokk yi ñii ñëw ñëpp yal yàlla teg leen ci yoonu jàmm suñu ñëwee Tiwaawan yal nañ fi fekk jàmm bi ñu fiy def itim yal na nekk ziara maqbula ñu ko sëñ Babacar daan waxee naan nit dina bëri na kuy jóge biir këram suy jóge foofu day yor ay jukkay na waaye su ñëwee ziar général ba ziara na mu waree ba ziar gu mat suy ñibbikat Moussa bu mat sëkk lay mujju doon mooy jukko yonti yàlla Moussa lay mujj doon kon ñu xam ni tilim tilim yi suñu jëmm tilim tilim yi suñu ruux moom la ñu ñëw ngir raxas ci ko kon nag fi nga war a raxasoo soo fa tilimeewee kon fan ngay setitee ci adduna suñu ñëwee ñu bàyyi xel xam ni ziar bi du folklore ziar bi du ay sinap ziar bi du ay dem ci xabru yi di raaj ci sa jëmm ziar bi ànd ak pas ci sa borom la nga dëkk man yàlla wan ko ni ko maa ngi jëm ci bërëb bu sell fas yéene fa yeesal samak njaamu yàlla fas yéene fa yeesal samak wommatu topp sayyiduna Muhammad fas yéene fa yeesal sama gëm-gëm ci Cheikh Ahmed Tidiane Cheikh Alhaaji Malik ak seen njaboot kon mbokk yi kàddu yi su jubee ñu xam ni ci yàlla buur bi subhaanahu wa taala lépp lu ci dëng itim ñu ngi koy jégalu ñun nongalu ndaw lii waaye lépp lu mën a am benn kàddu la am damay wax naan isa saxa aqwali wa fasaxa lisaani istanartu bi nuuri sayidi wa mawlaaya sëriñ babacar si abdul aziz ñun duñu dara suñu waxee suñu làmmiñ leer suñu waxee suñu dënn ibbeeku lépp ñoo ngi niitoo suñ suñu leeru ki ñu amul kudul moom di sëriñ babacar si abdul aziz ñu ngi koy ñaanal yàlla moom ak xalifaam ak mboolem njaboot Cheikh Alhaaji Malick yàlla sàmm leen aar leen bàyyi leen ci kanamu njaboot ki ba mu yàgg loolu te ànd ak wér wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ah fa tabaarakallahu kon ñoo ko déggandoo mbokki internet yi ah lii lañ leen indiloon fa tabaarakallahu ci guddig ziyaara gi yaakaar na ni tamit ñëpp dégg nañu jàngale yi nga xamante ne mu am solo lool nga xamante ne xaaji Moussa indi na ko yàlla na yàlla def dégg ak topp na ci ñëpp bàyyi xel ziyaara fa tabarakallahu lim ci indi yëpp dégg nañ ko wante étoile tv ngeen i àndal na ñëpp abone ziar bi dara façonné leen ci rëcc ngeen ànd ci ñun ak yéen ci étoile tv ñu bégal leen ci Serigne Babacar Sy bégal leen ci Cheikh Sidi Hadji Malick bégal leen ci rasulillahi